fi yàgg te wér di ci teg sëriñ Modou Mokhtar Mbacke leeram bi nga xamante ni moom lañu ñu bàyyi fii ci yi mu nekk ak ñun ànd ak ñun ci liggéey bu rafet ñu koy ñaanal naal bi mu am ci Bambey yal na ko suñu borom yeggaleen di nuyu kilifa aada yi di nuyu suñu mbokku jàngu bi yépp ñu leen di nuyu di jël nuyoo bi nag di ko teg sama mbokk journaliste yi nga xam ne wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey bu am solo maa ngi nuyu journaliste maa ngi nuyu techniciens yi di jël nag particulièrement nuyoo bi di ko teg ci département de Bambey departement de Bambey su ma ko waxee mooy sama mbokki bawol bawol yépp maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal ñi ci caabi féete ginnaaw suñu borom oyofal leen ko ñi ci feebar yàlla na leen suñu borom saafu saafaraal faj leen ba ñu duñ yëgati dara euh, di leen wax ne man la maam Thierno Niang seen doom seen mbokk dëkk fii ci dëkk bi di ndaw bokk ci coalition farlu di tête de liste départementale bi bu coalition farlu avec le ministre Moustapha Diop mhm. maa bëgg a waxtaan ak yéen ndaxte damay ndaw dëkk ci dëkk bi gis ni dëkk bi di doxe lu bari ci dëkk bi ma xam fiy metti ma nekk ndaw nag jël sama engagement pare pour ñëw ci dëkk bi tàllal leen samay loxo ngeen ngeen ngeen ngeen mën maa ñaanal voteel ma su ko defee ñu ànd liggéey dëkk bi parce que dëkk bi ñun gis nañ li fi nekk lu ci bëri boo xoolee santé bi xool éducation bi xool yoon yi xool dund bi loolu yépp sooxe na te ñun dañoo bëgg bokk ci ñi nga xamante ne nii dinañu yore ay projet de loi yu dëgër yoo xamante ni bu ñu demee assemblée nationale ci penc ndaw réew mi bu soobee yàlla lépp loo xamante ni moo fiy kàddu Bambey dinañ ko fa jibal ba ñëpp dégg ko ñu jéem ci ay saafara wax ji nag du bëri dañuy lancer appel di ñaan jàmm suñu mbokku tête de liste yi suñu mbokk politiciens yi ñu xam ne Bambey kat benn bopp la kenn mënu koo xar ñu woote jàmm seetu jàmm ndax ginnaaw élection yi ñooy bokk ndey ñooy bokk bàyyi kon nañ ko rafetal sama militant sama mbokk yi sama am di jàmm sama mbokki département bi parce que département bi bu ñu ko waxee du Bambey rek dafa am ñoo xamante ni bu ñu déggee département dañuy jàpp ne Bambey waaye département bi boo xoolee Ngoy Aliou Silla ak li ko wër ñëw Mbaba garage ak li ko wër ñëw Lambay ak li ko wër ñoom ñëpp tàllal naa leen sama samay loxo di leen ñaan ñu def ñu ñu jàppale ma ñu ànd ak man ci liggéey bi ba yàlla may ma euh, ndam le 17 novembre coalition farlu nekk en tête ci département bi programme de déroulement bi dinaa ci ñëw parce que fi mu nekk nii man damaa jóg di ndaw ànd ak samay mbokk di def samay proximité di xool samay di xool samay sama di xool samay mbokk di leen tàllal samay loxo ñu may ñaanal loolu nag su ma ci jógee incha allah dinaa woo le leader le ministre Moustapha Diop ko defee moom dina ñëw mi nga xamante ni mooy tête de liste coalition bi moom dina ñëw incha allah fekk ma fii ci Bambey ma woote nag su boobaa samay mbokk woote samay nit woo département bi yëpp ñu daje fii mu xam ne wax dëgg yàlla samp na koo xamante ne ni jar naa yóbbante baatu askan wi ci penc ndaw réew mi